Jaxate ñu ngi lay sant di la gërëm di rafetlu sa taxawaay di sant yàlla bu baax a baax di sant suñu borom bu baax a baax di sant suñuy waajur sant sama bopp sant président Aymérou di ko sant bu baax a di sant commune Mérina Dakhar di sant conseillers ak conseillères di sant Ngagne Demba Diallo parce que jàppale na président ay loolu ba ñëpp xam ne jàppale na parce que lii su amee yàlla ak loxoom mi ngi ndax nag ñun am nañ majorité parce que am nañ quarante et conseil moom mu am plus de dix conseil te lu fay ci ñun rek moo tële kon ñu koy sant bu mel ni mbir mi waaw sant yàlla rek nit moo sonn waaye yàlla sonn nit moo yàkkamti waaye yàlla moom li war a am démb ak bërki démb bind na koo pare lii lépp ndogalu suñu borom dañuy sant yàlla lay doon xanaa gën a tax yokk suñu taxawaay ni ñun bañ ñu falee ba tey ci taxawaay jàppale commune Mérina Dakhar ci lañ nekk kon nag loolu dañ koy yokkute bi ñu defee première adjointe au maire waaye duñ ci dellu benn yoon ginnaaw ànd koog jigéen ñi ñoo yoroon commission féminine boole ko ak liñ ñu jox ànd ko ak jigéen ñi di ko liggéey loolu rek la mel ni parce que parité bi ko am ngeen ñaari actions yu jigéen waaw respecté nañ parité bi ñu ngi sant yàlla bu baax loolu lépp président ay nuyu moom moo xam ku nekk cër ba nga cër ba nga ba nga ba nga yelloo mu jox la ko. ñu ngi sant bu baax a baax. tey mu bàyyi poste maire bi démissionné dem noppalu ji du manque ba nekk manquement. waaw nee na moom mi ñu wóolu ba dénk ñu nag mi ngi ci suñu ginnaaw puisque nag moom duñu sori benn yoon mooy suñu mentor ci lépp suñu mentor santaat bu wér rek di sant nag ndaje ga gëm a dëkk. bu baax a baax sant commune na ndaxaar góor ak jigéen ñi ngi sant bu baax a baax di ñaan yàlla fii ñu ñuy teg ba deux mille vingt sept yàlla nañu yàlla jàppale ba li population bi soxla ñu man ko ci kàttanu yàlla loolu rek la ñuy ñaan suñu borom